assalamu asalaamaaleykum Cheikh Bakar Diagne eh, tey Thiès Info dafa ñëwoon waxtaan ak yow eh, yëg na ni eh, barki démb bi premier ministre recevoir na la si kanamu ay kàngam yo xam ne ñu ngi nekk ci wetu Macky Sall lan moo doon say fofé ben ma ngi lay remercier bu baax. ci opportunité bi ngeen ma jox pour que je puisse au moins m'exprimer devant la nation sénégalaise en particulier devant les Thiessois. Euh, premier ministre recevoir na ma te fan yële ma dem seeti ko premier ministre ma doom la moom xam na lu nu bokk bi ma wooyee waxtaan naa ak moom joxoon naa ko sama kàddu ci nii danaa jàppale Macky Sall fii ci kees muy lu may confirmer encore fii parce que premier ministre euh, suma yang dina am ndam ci lii ko Macky Sall jox ndax ndamam sama ndam la léegi nag ci gàttal dama bëgg a ni tey commencé wul tey keroog bi Macky Sall jëlee nguur gi j'avais fait une déclaration boo xam ni sama mbooloo yëpp laa woo ci sama kër wax ni à partir d'aujourd'hui damay jàppale Macky Sall parce que man Je ne suis pas pour un parti politique. Je suis un républicain. mais Thiès daf ma ñor ma dëkk fi juddoo fi yaru fi boo ci dëkk say quatre ans di di manqué ay ñaari at ak yooyu foofa am na loo fa doon te dëkk bi mën naa fee daagu fu ma neex amul fenn fu ma mun dem la tête haute ci dëkk bi donc may may confirmer promesse bi ma joxoon premier ministre ci biir bureau wan ko ni ko mu boole ma ak euh, Siré ma ni Siré mu ne ma naa jàppale Siré à Thiès Siré ñëw na ba fii ci man je confirme que ni maa ngi jàppale Siré guddi ak bëccëg saayir ak baatin tey wax Sénégal que je prends l'engagement de soutenir le président Macky Sall ab ci Thiès ak ci Sénégal ak bitim réew lu mu ci man danaa ko def je confirme aussi que ni Macky Sall kenn mënu koo teree gagné élection yi maa koy wax dé té dama ñëpp ngi may gis te àdduna may gis day gagner élection yi protestant no protestant du mañ du ñak ñu protester mais quel que soit euh, ce que les gens vont dire Macky Sall va gagner les élections. est-ce que bi nga jógee ci audience ak premier ministre amna ay jéego yo dox lo xamni jëmné ci jappalé premier ministre. waaw parce que sama néeg la toog devant. Siré euh, Dia ci sama ci kanamam woonaale grands électeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi kenn ku ci nekk am na lu ma séq ak moom ñii ànd naa ak moom dem ci dem ca ñoom ñii wax naa ak moom téléphone ñu dégg. réew mi actuellement gis na nii fi mu toll nii dafa critique euh, te yow gis na ni euh, bi Ablaye Wade yore nguur gi jege woon nga ko lool te tey am na si ay tànk yu mu taxaw lan mooy sa xalaat ay dénkaane. bon écoutez. man li ma li ma gën a gën a naqari mooy le parti démocratique le parti de Ablaye Wade Ablaye Wade suma mag la mën a doon mënuma jur parce que am naa léegi ma am juróom-ñetti fukki at sama mag rek la mën a doon damaa defal parteem lu nekk ci àddina sama doom yaa ngi nii toog duñ ma weddi lu ne dama koo def fii ci dëkk bi te mosuma recevoir un franc de Ablaye Wade benn 15 du xaalis du oto du déclaration du terrain du kër ci sama alal laa doon jël Cees mën nañ ma seede di ko def ci parti bi loolu dama ko doon defee mooy part parti ñoruma li ma ñor mooy réew mi li ma gën a ñor mooy Cees gi ma dëkk ma def ci lu nekk bi Ablaye Wade daanoo ak léegi gis naa ni euh, euh, porté na ma préjudice parce que ñëpp defe nañ ni je encore PDS te bi Ablaye Wade daanoo monté da am bureau PDS fii jël Omar Sar, def ko muy tedd muy muy jitam le le secrétaire général adjoint Omar Sar bu nu dajewoon ci mbedd mi du xam amul ben ben ben responsable politique bu PDS bu mos a déplacé ñëw seet ma fi wala nga téléphoner ma amul réunion bu ñuma ma mos invité dara ma tok nak comme man nak je suis pas un politicien je suis un notable un républicain yoyu intéressé wu ma. li ma intéressé mooy ku yor réew mi yor ko ci jàmm di doxal jàmm ma jàpp ba soutenir la rawaate na nag Macky Sall mi nga xam ni kii mu jël def ko ci kanamam muy premier ministre sama doom la moom xam na man xam naa. alors fii Thiès xëccoo bi rawante bi euh, nar na métti euh, noo defee ak ñi nga xam ni ñoom la teg ci investir leen muy Siré ak euh, yeneen kàngam yi yore benn man Siré moom la ma. premier ministre joxe ni naa ko jàppale moom la ma Macky Sall joxe ni naa ko jàppale pourquoi parce que Macky Sall moom la def tête de liste si à donc ñoom moom lay jàppale di j'appelle aussi les autres euh, euh, responsables euh, de l'APR qui sont à de faire comme moi dem jàppale ko bu Macky Sall gagné ñu door a jil ndam li def lu leen bëgg ñu bëgg def ñu def ko mais fi ñu toll du affaire contrainte du affaire xirante du affaire ŋaayante affaire dégg benn baat muy seen baatu kilifa muy président de la république mu yëkkati nit ne ko ne kii laa jiital nañ topp ci ginnaawam jàppale ko man de moom maa koy jàppale lu ma mën. dama la wax léegi ci biir sama waxtaan wax naa wax naa la ni la PDS daf ma porter préjudice parce que que ñu bañ ko wax ak ñu bañ ko wax le parti au pouvoir defe nañ ni man lu fanaan ci man fanaan ci Ablaye Wade Ablaye Wade ba mu génnee réew mi ak léegi mosunoo wax téléphone ba mu wàccee laa ko gëj a gis ba mu wàccee laa ko télévision. mësuñu toog wax Karim Wade doomam la joxoon ma cër bu mat sëkk nekk fii cër ba itam du woon cëru alal cëru cëru def ma bàyyi respecté ma yëg ma loolu la ma joxoon ba ni mu fi jógee loolu moo nekkoon sama diggante ak moom ça n'a rien à voir avec euh, euh, ces élections là yi nga xam dañ koy def pour wut ay ndawi réew yu ñu yebal ci assemblée nationale président Macky am listam keneen am liste keneen am liste man nag damaa opté pour pour soutenir liste la liste du président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar boobu décision laa jël te c'est irrévocable te ñoom dinañ ci xam dara wax naa léegi ni leen APR day gañe élection yii Thiès it APR da koy gañe alors Abdoulaye Wade taxaw na ne dafay marché ministère de l'intérieur te ku ne xam na ni euh, jegewoon nga ko loolu kooku euh, yan commentaire nga si def. ba commentaire bi ma ciy def mooy damay ñaan Ablaye Wade mu mu bàyyi loolu mu bañ ko def parce que loolu fitna lay indi ci réew mi bu ko nangoo ak bu ko nanguwul day indi fitna te na baaxul. yàlla rëbb na ki yee fitna kon nag moom bu fit na jóge ci moom moom li ko Sénégal defal ak li mu defal Sénégal waratula toog ba nëgë ni mu di ko yàq ci loo xam ni jaru ko amul lépp lépp lu nekk ci ci xolu nit ak lu nekk ci xelu nit mënees na ko lijjanti ci waxtaan ba mu sedd guy te paaka du génn mbaram waaw lu gën a roy lool la Serigne Touba defal àdduna du ma wax lii Sénégal am Serigne Touba moo leen ko jox te kenn gisu mos a gis mu rey nit mbaa mu woote lu luy lu lu lu nit di dee te la mu bëggoon lépp yàlla jox nañ ko jox na ko ko. kon nag nanu soowee Sénégal ci appel boobu mu def dafa koy ñaan ngir yàlla ak jëmi Serigne Saliou Mbacke mi mu waxoon ni moom la gëmoon te man leer na ma ni Serigne Saliou Mbacke bu fi nekkoon tey yii itam dana ko ñaan loolu te yii ko fi nekkalit leer na ma ni ñaan nañ ko ko na ko teg ci suuf pour jàmm am ci réew mi ñu bañ a indi histoire bañ a indi dara carte yi nit ñi nañu dem jël ko ñu dem wote ji ci jàmm Sénégal am na woy ci wote ba noppi buñ ko yàq ci élection yi loolu rek lay ñaan Ablaye xam nga loo bëggul a gis ngay ngay ngay bañ a gis parce que kenn mënul wax ni Macky Sall 2012 ak léegi defu fi dara c'est impossible il a fait énormément de choses mais ki nga xam ni kat dafa bëgg place bi Macky Sall toog mu toog du gis loolu mais Sénégal nañu yeewu Sénégal kenn mënu ko defar par une baguette magique bu ñu ko mënoon Senghor def ko Senghor mënu ko Abdou Diouf bi ko fi remplacer mënu ko Ablaye Wade bi ko fi remplacer woon mënu ko Macky Sall mi du ko man Macky Sall day def fa dolem yem mu bàyyi bu baye keneen ñëw jël départ fi Macky Sall baye yok la muy yok waye Macky Sall kenn ku nek xam na ni def na fi Ablaye Wade a fait beaucoup de choses au Sénégal défendre nañu fu nek fu nek défendre na fa le le le euh, peuple africain def na lu nek il a fait beaucoup d'efforts moi je le lui reconnais mais. du tax nag ma gëmm sama bët ci réalisation yi ma gis Macky Sall di def ko ci dimb li nit surtout soxnaam surtout soxna Macky Sall gis naa fii ba tàyyi ñu di ñuy contre ay action yu muy def nii de day jàppale jëkkër loolu yàlla moo ko ne yonent bi ay soxnaam dañ ko doon jàppale Khadija moo jëkk a jàppale Rasulullah kon Marème fay sàll bu jàppale Macky Sall elle est dans son devoir de jàppale de jàpp soutenir son mari mi ngi jàppale jëkkëram maa ngi koy wax loolu bu ko ci wax génne bu ko ci mere génne bu ko ci kenn génne na topp ginnaaw jëkkëram li muy def am na ñoo xam ne ñii naw nañu ko ci te ñoo ñi ko ci naw moo ëpp ci ñi ko ci nawul ku ko ci nawul rek da doon ci da ngaa nekk ca benn wet ga mais ku nekkul ca benn wet ga wala nga neutre di nga naw Marème fay Sall li muy def ci réew mi pour son mari et pour le peuple. ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall jiital fii si région bi ak département bi waaye nan nga def ak ñoom. Pascal yoon laay jëkkee. suma doom la te it di ma ko jàppale dama la wax ni la man suma ma tëddee ci sama néeg bi du ma génn duma dem fenn mais lu fanaan ci dëkk bi bu bu ñu xëyee danañ ma ko indi fii ci dëkk ci man Pascal yoon dafa taxaw taxawaay bu rafet bu àndul ak xase àndul ak lu ñaaw àndul ak wax ju bon di liggéeyal Macky Sall président Macky Sall sincèrement maa ngi koy woo moom itam lu mu mën ci jàppale tête de bi nga xam ni moom la président Macky Sall jiit ci région bi mu jàppale ko ko. te xam naa ne it loolu lay def bi ci des mooy euh, xëccoo ci benn parti dafa ñaaw man maa ngi maa ngi saluer euh, euh, l'attitude du ministre des forces armées muy muy Augustin tin Augustin Tine bañ ko falee ba Macky Sall fale ak léegi maa ngi koy suivre muy dox ay jéego yoo xam ni da koy def discrètement boolewu kook saaga boogaluwu koo xaste boolewu ko xuloo ci liggéeyam la nekk mais leer na ma ni mi ngi jàppale Macky Sall ci suuf jàppale bu wér a wér ma ko waxee am na lu ma ci xam ndax fu fu ñëwul ci man it ma dem foo xam ne dem na fa ma xam jéego ya mu fay dox lépp di jàmm waaye nag loolu maa ngi koy gërëme aussi di ko di ci woo sunu mbokk euh, jullit yi lislaam boobu yar la bëgg lislaam dafa bëgg nit ku yaru nit ku teey nit ku dal alors sunu mbokku chrétiens yi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax euh, di leen sant aussi ci yar yooyu nu yar sunu doom yi parce que sunu doom yi nekk chrétien yaru nañu lool am na loo xam ne doo leen ca fekk moo tax may gërëm encore Augustin Tine di ko sant di ko ñaanal yàlla lii ko mukki Sall dénk moom itam yàlla na ko yeggale moom it na ñëw jàppale frère am jàppale rakkam ci ndigalu président Macky Sall loolu laa koy ñaan moom itam. Cheikh Bakar euh, cette décision à soutenir y a une action que vous sur le plan militant. enfin action que may appel à tous mes militants à tous mes parents et sympathisants de la région de ak que nous, nous soutenir Macky Sall urne bi ku fa des dama fas fas yéene gore ci ma diggante ak sama borom te ñi ma àndal xam naa loolu ma animé moo leen animé ma ci irni bi waat naa ci ni sama carte bi Macky Sall laa koy woteel maa ngi woo nag képp koo xam ne ki ànd nga ak man àndoon nga ak man te te toog doon ma déglu woote naa tey jii pour que ñu soutenir ci wote bi ñu soutenir soutenir liste APR loolu lay joxe lay comme appel bi ci des nag di ngi ñaan aussi que ni réew mi jàmm moo fi xaj ay xaju fi ñun ñëpp ay mbokk lañu bu ñu jógee ci wote bii dañuy takkante jabar di demante ngénte di defal defante lu nekk ci lu baax kon loolu bu ñu ko yàq ndax benn bés bés bi day paase beneen bés day paase bés yu bari paase na fi bi nag maa ngi ñaan maa ngi ñaan yàlla parce que nun eh, ñaan moom ñëpp yàlla moom bien commun la te xam naa ne loolu itam kilifa diine yi ñu ngi ci maa ngi toog ci seen ginnaaw mantam tàllal sama loxo yàlla di ko ñaan yàlla wàcc jàmm ci dëkk bi yàlla wàcc ci jàmm ci réew mi yàlla defal jàmm gouvernement bi fa ñu bëgg a yóbbu Sénégal ñoo xam ci lu baax yàlla na leen yàlla jàppale avec le soutien du peuple sénégalais ñu yóbbu ko fu ñu ko bëgg a yóbbu. dafa mel ni carte yi eh, distribution yi yéex na sooxe na loolu lu si xalaat. waa lu lu lu lu la kenn mënul am. même yàlla lii mu defal am na ñu koy xeeb am na ñu xeeb seen wàll yaa ngi dégg mais nag maa ngi ñaan quand même Macky président Macky Sall maa ngi koy ñaan mu mu redoubler d'effort lu mu man ci nit ñi jot seeni carte dem wote yi na na ko def ci jàmm ak salaam bu mu am xëccoo bu mu am ŋaayoo bu mu am ségrégation bu mu am dara loolu laa koy ñaan maa ngi ñaan nag yàlla yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla defal jàmm ngóor gi defal président jàmm ak soxnaam ak waa këram defal na ko nun ñii defal ko le peuple sénégalais en particulier les Thiessois